waaw maa ngi tudd Moustapha Koundoul maa ngi jiite ndaw jàppale président Madické Niang ci élection campagne élection 2019. Euh, seen teewaay tey Touba lan la. waaw suñu teewaay tey dañu ñëw pour euh, parrainer benn journée des journées euh, pour collecte parrainage bi nga xam ni élèves étudiants yi dëkk Touba yi nga xam ni ñu ngi jàppale président Madické ñoo ko woote woon ànd kook délégation bi nga xam ni tey ñu ngi jógee ba dakaar présidente commission féminine jiite ko nga xam ni mu ngi jiite ndaw ñi ci jigéen ñi ñu ñëw tey pour euh, sensibiliser waat ñi nga xam ni tey ñoo yor ay mbootaay dëkk ci Touba ak ci Ndindi donc euh, loolu ñu ñëwoon tey pour euh, fësalaat suñu liggéey ci su le terrain ndax tey ñu ngi toll ci phase bi nga xam ni tey moo gën a déterminante ci tey pour euh, euh, dajale ay parrainage ndax ñu ngi ci mujjantal bi donc Touba mu représenté lu rëy rëy rëy ci ci ci candidat Madické kon tey day war tey suñu descente bi ñu njëkk a def tey ñu wàcc biir Touba ndax président Madické Niang fii mooy fiefam ndax fii lay voté fii la dëkk donc euh, loolu moo indi tey suñu teewaay bi ànd kook suñu mm, àndandoo yi nga xam ni tey ñu ngi sur le terrain boobu ba léegi mhm. dajale ay parrain yu bëree bëree bëree bëri di ko indil président Madické Niang donc day baax tey ñu ñëw ànd kook seen journée 48 heures bi nga xam ni président Madické Niang moo leen ko moo leen ko moo leen moo moom lañ koy taxawal ñun ñuy ànd ak Madické Niang di ko liggéeyal day baax tey ñu ànd ak ñoom ci ci liggéey boobu noonu di wane exemple aussi li ñu def tey fii danañ ko nar a def yeneen localité yi nga xam ne tey ñu ngi taxaw di jàppale président Madické Niang. bi ngeen dikkee dégg ne Benno Bokk Yaakaar. gardaajo nañ signature yi ci wàllu parrainage bi muy liñ dégg ci ab lim xaw na takku. mbaa kon di ngeen fi jëlee dara. waaw defe naa loolu nekkatul lu ñuy lam-lamee corps électoral euh, pouvoir poids électoralu Touba mun naa affirmer ni Madické Niang moo gardé quatre-vingt-dix pour cent yi ndax moo nekk ci xol waa Touba. ñi nga xam ne tey dañuy jënd ay parrainage defe naa ni yàq seen xaalis la ñuy def. ndax fii ku tax ku xam Touba xam ni Touba mënuñu tàqalikoo ak di Niang ci ñoom la bokk mm-hmm. donc te li muy incarné moo saf waa Touba te li muy euh, li muy li muy woote moo neex waa Touba mm-hmm. donc defe naa ni ñooñu di jënd ay parrainage defuñu lu yàq seen xaalis te it bi ñu yàqee seen xaalis xaalis réew mi la ñuy yàq kon loolu day gën a ñaawal seen daanu rek mm-hmm. jeunesse opposition bi daje nañ nee nañ ñi ngi njort ne état bi mi ngi ci sàcc élection yi fii à Touba ni ñu ko defoon ci législative yi ndax pare ngeen pour aar loolu. waaw taxaw nañ temm tey pour euh, jaarale élection yi Macky Sall jaarale élection yi ñu mu ko waree ndax looloo waral keroog àjjuma maître Mame Adama Gueye bi nga xam ne mu ngi diriger plateforme pour euh, taxawal élection transparente ak euh, libre et transparente tey. jël nañu ay position président Madické Niang jël na ay position yu ferme yoo nga xam ne tey taxaw nañ pour jànkonte ak waa nguur gi nga xam ne nar nañu tey nar nañu tey lëbëj tey carte gi ñun ñu mën a xeex pour loolu mën a bañ a am te yaakaar naa ni tey nit ñi yeewu nañ yeewu joo xam ni seen bakkan lañ ci teg pour élection yi jaar ci yoon. dañu ñëwoon fii rek ci xale yu étudiants yi nga xam ne ñoo yor liggéeyu communication parti bi li ci ëpp ñu ñëwoon fii ci Darou Khoudoss tey am benn signal fort bu ñu doon wane rek ci tolluwaayu liggéey bi ci parrainage bi euh, ñoom président Mamour Koundoul Mamour Ndioub. ak sëñ Moustapha Koundoul jógee ba dakaar ñëw ànd ak ñoom. ak ak soxna Olimata ñu ñëw am luñ doon wone si ci seen yéene ak seen pas di wone pas-pasu président Madické ci Touba. ndax koo xam ne lépp looy def Touba nga koy tàmbalee mooy sa wàccuwaay maanaa saa yi ndaw war nañu jël jël jikko yooyu ngay doxe ba lépp lu ñuy def ñoom ñu tàmbalee ko Touba loolu moo waral tey jataay bii. ñu doon def nag benn vingt quatre heures boo xam ne dañ ci doon tasaare xabaar ak di collecter ay parrainage ci biir dëkk bi démb lañ ko tàmbali tey ñu doon ko jeexal ñu jeexale ko fii ci biir Daaru Xuddoos nag loolu nag bu bu ngeen gisee mu am mooy dañu bëgg a wone rek ne président ma candidat la boo xam ne sii bu wuute ak candidat yi ci Sénégal ndax moom rek mooy candidat bi nga xam ne moom moo mooy mooy wotee Touba moo dëkk Touba doon koo xam ne ba ba doon candidat dëkk ñëw fi doon koo xam ne ku social social gi nga xam ne doon na ko ba doon ko ci biir Touba doon ko ci Sénégal gépp nag moo waral lépp lu muy def ci social la koy tàmbalee mu ñëwoon nag tey ñu doon def yu am solo yooyu bi ñu noppee ñu jeexale ko ci social yooyu social yooyu nag mu àndante ko waa Touba ci fànn yëpp loolu moo waral tey liggéey bi mu demee nii ñi ngi sant bu baax a baax a baax di gërëm mbooleem délégation yu jóge ba Dakar ñëw ànd ak ak ak ak étudiants yi nga xam ne ñoo nekk Dakar ak Touba ak département Mbacké yëpp ñu ànd doon def initiative bu rafet bi ñu ngi leen di encouragé di leen xamal daal liggéey bi ci seen loxo la nekk dafa compter bu baax a baax a baax ci ñaar muy jigéen ñi ak ndaw ñi. baax rek wax dëgg yàlla sant ba na xanaa waaye sant bi neexul ma sant faal waaye yal na ko yàlla ak sëñ Touba Mbacké jàppale maam sëñ Touba Mbacké laa koy booleel yàlla ki amul kumpa xam na ci saa barke turandoo soxna Fatou Dia mi ma duppee ñaan naa ci yàlla yonent bi ak sëñ Touba yàlla na ko mboolante addina sépp jàppale ak sëñ Touba Touba Mbacke gën a raw ci wasalaam yàlla na yàlla ak sëñ Touba Mbacke yeggale lépp lépp lépp lépp ci barke maam borom Touba.